waaw ñu ngi wax ñu nit ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi Moustapha salmal ci moom ñu ngi sant cheikhu tidiane bahrul anwaari xatmul awliya góor gu tedd googu borom faase ca faas nga xam ne dafa waxoon ne ana min qaafin ila qaaf man rek maa fi góor wax ju ma neex la ma koy ubbee sama wax ndax mooy góori góor ñi ndax mooy bahrul anwaari te mooy xatmul awliyaa wax la joo xam ne buy jib rek nit ñi wàllu cër la ñuy xelaat ay tànk ak loxoog ay yu kenn xamut waaye Cheikhu Tidiane mooy jëmm ji nga xam ne mooy alimente mboolem wëlli yi ñëpp ñu ngi naane ci géejam nandalem Cheikhu Tidiane ku ko bañ da nga dee ci mar ndax amut feneen foo mën a naaneeti pour noppal nit ñi sax keroog ba nga jëlee tariqa bi dañ la wax ne la bul ziyaare benn wëlli bu du tijaan moo xam buy dund wala buy dee jubluwut ci pour xatal diine ji indi divergence xaajale jullit ñi déedéet li nga soxla ci yàlla mun nga ko amee ci buntam ñuy bañ na ngay ragaj-ragaj yi fu ne nga dem fa te dëgg-dëgg mbooleem séddalekat yi moo leen sédd kon egg si nga ci pindab bi sax fa rek di root rek ñu ngi koy ndokkeel waaye ñu ngi njukkal daj dëpp gi léppi ñëpp fajkati ajo yi farkati bakaar yi bàyyi daam ak aas waaye waaye Omar mal la ci am ñas kumba abdul ay ku neex a xool la ku neex a gëm la ku neex a bëgg la ku neex a topp la ndax moom léppam njëriñ la te ñun ñi toog fii yëpp am nañ yaakaar ne jëriñu nañ ci moom kon nañ delloo mbàttulu ci ndaa lañ naanee ñun ñëpp nañ bokk wax jërëjëfee Baye Niass ñu waxaat jërëjëfee Baye ñu waxaat jërëjëfee Baye Niass kàddu gi moom du gudd waa dañuy barkelu rek ndax jotaay yu ni mel ñu joxla si microne la am waxal ngay gantal man dama ko jàppee ñàkk teggin Eh, ni ki nga xamee ne ñiñ parrainé ne leen am nañ jagle ndax tantab Cheikh Ibrahim ñu ne yow lañ ko jagleel tantab Cheikh Ibrahim nga ñëw ci ñu ne yaa koy sikar yaay lal basang ya yaay baas baas ba yaay toggal nit ñi ñu lekk hee am micro waxal ni ñi tuuti ci lu leen di jëriñ ci baay yooyu yëpp ay xeeti teraanga la yoo xam ne yokkute rek lay jur kon boo tax na du mun a delloo kàddu gi danañ jël sant yàlla rek ci li ñu yàlla boole ci biir jataay ndax damay wax ne boole gi yàlla la suñu mbokk Cheikh Tidiane Dramé moo ñëw ci suñ daayira parce que réeréewu leen mbir ne dañ doon njukkal baay le 10 décembre ci géejuwaay njukkal baay ga mucc ayib neex lool seen ñaan yaa ko neexal ma ne nag dañuy santante tey gërëmante defali président bi daayira bi ñuy daayira daayira bi nag suñ xarit Cheikh Tidiane Dramé ñëw ca wax fa waxtaan wu neex wu mucc ayib vraiment soññu taalibe yi xiir leen ci góorgóorlu te bi ñëwee it même programme lañ fi fekk rek lañ doon waxee fële moom lañ dégg fii mu ne ma Baye Modou Gueye dafa am tey programme ci ginnaaw raay ma ne ko Baye Modou Gueye mu ne ma sa ma ne ko kon ñoo cay ànd jataay ba dafa pare rek gaa ñu ngi ci coono ñu ngi ci yu kenn xamul jamono yi waaye dama ne ko dañ ciy ànd acte de présence bi bu amee wóor na dana ko neex te it xam nañ ne moom fu mu toog luy jëriñ nit ñi ak luy namm xaal yi buurloo xaal yi suuxat gàncaxi xol yi loolu rek a fay xew te man lool lay wër mam màlle mu ne nañ ut baay amut frontière ku ko uutal frontière da nga sonn te doo ko am te baay mooy aji tëbbe ji te mooy jëriñe te jotaayu ni mel ku fi ñëw rek da ngay monter da ngay ndax ñun ñëpp monter nañ ma ne ko nañ dem naa jël suma oto bi ñu ñu ànd dem ci biñ ñëwee it ñu nit wana ko mbott boobu mm, foofu nga xam ne dugg nga fa ñun biñ bi ñu waajee di ñëw rek lañ dugg ci wana ko mbott bi génnuñ ko ci oto bi ba bu ñuy saafuwanteeg yow ba bi ngay tëj sa jotaay te ba bu ñuy ñibbi wana ko mbott boobu ca lañ dëkk ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi kontaan bu baax jotaay bi rafet na neex na am na xaal ñu ngi lay ndokkel ñu ngi ndokkelit muqaddam bi nga xam ne moo oote lii euh, daan nañ ko gis waaye tey lañ ko dégg te biñ déggee mu wax xam nañ ne euh, dëgg-dëgg amewut bàyyi làmmeñ bàyyi xol la amee parce que bàyyi xol su fekkee am nga ko sooy kaddu rek nit ñi seen noppi xol lañ lay déggee te kàddoom bi fi mu tàmbalee ba fi mu tëjee lépp maa ngi koy encaissé ci suma xol bi di ci yëg neex te aussi li ma gën a neex ci mbiram mooy kóllëre gi nga xam ne moom la bàyyi moo duggee di dund digganteem ak Dieng Saala loolu laa yëg moom itamit mu dund ko digganteem ak sëriñam kon jataay bi am na barke tant bi nag mel na ni lu tuuti waaye tant bu rëy la tant gën na ko yaatu baas gën koo bari nit gën koo leer gën koo neexi rajo waaye barke bi wàcc fii wàccut foofa jataay bi jataay bu yàlla gërëm la jataay bu yàlla gërëm la kon képp koo xam ne nii yàlla may na la nga fekkee lii rek santal yàlla wa alhamdulillah confirmation ñu dem booy pare rek doomu Maulana Cheikh Ibrahim yegg si alwaladu sirrabi ñas ñu lay catagal balaa ñu yëkkati kàddu yoo la ñu waroon a njëkk a ñaan ndigal damay wax ne lettre soo ko bindee bu ko poste mu dem ala kulli alin dafay am timbre te ñooñ bàyyi buñ dajee nag ñas egg si ba tafu na dafay dem kooku duñ ko rejeté day dem direct kon loolu beneen firnde la buy wane ne bàyyi gërëm na bi jataay Baye Modou Gueye mention spéciale conférence bi neex na daf nga ko gàtt saf waaye crise des valeurs loolu def ñu dal ci suñ mag ñu baax ñi ñu am te xamuñ leen waaye rawatina jekk fas rafet kaa la kii nga xam ne mooy yërmandeeg yàlla gi yàlla indi ko wàcceeku ci alam bi mu ñëw pour jëriñ nit ñi yàlla wàcceeku fii ci Sénégal ba léegi nit ñi nekk ci nelaw rek xamuñ kan mooy moolaana Cheikh Ibrahim loolu yëpp nag crise des valeurs la suñ xamoon Cheikh Ibrahim mooy kan ba jox ko gëddam boo omatu ba mel ni ñu war a mel ci moom teraanga àddina ak da danañ ko am waaye da nga dugg ci ruq soo xam ne ruq su am solo la mooy diggante taalibe ak sëriñ damay wax ne taalibe bu mu mun a doon yaa ngi ci sa péyëb sëriñ sëriñ ba nga àndat gomoo ko yaa ngi koy ñee yaa ngi ko xañaane fi moo du tàmbalee waxam yow doo taalibe buy jëriñu damay wax tout le temps nag ne milieu boo dem rek da nga fa fekk ñetti taalibe yi mooy taalibe ak taalaboon ak teela ba taalaboon ak teela ba dañ leen jàppee taalibe duñ taalibe de ah, teela ba daa ñëw ànd ak sëriñ bi rek yëf yu métti mu daw dem làqu ji fee naan maara bi kii kenn xamut ay affaire am waaye dafa métti mbir écarté wu na nag woo di feeñal fa mu nekk ak mat nag ñooñ sax ñooy yàq deru sëriñ si parce que dañ la war a defar ngay benn produit boo xam ne dañ lay defar ba nga ne coog ñu teg la ci ruq ngay defar comme suñ mbokk mi mu nekkee fii da ngay feeñal taar parce que dañ la defar nañ la pare nga mais ñëw léegi li ma gis ci jamono da ngay ñëw ànd ak sëriñ bi fraction de seconde rek dagg sa kaala ut sa daraak sa ayka bu baax kaala oo asamaan si jël poto bi def ko dokku dégg nga ko tey lii war ci yow matagut nga beru sëriñ bi gisatoo ku la commandé yaa ut ñoo commandé doo taalibe yow teel a ba mbir ya daa métti nga beru rek yàq rek nga fay nekkee su ko defee di def say tuuxi du na ca koñ ba nag ñu naan taalibe baay Modou Gueye bi nekk fii kii li muy def te bala Baye Modou Gueye gis mën na ñetti at gisatul la tegatul la bët kooku du taalibe kooku teel a bala bana ca teel beru yàq rek yàlla tere nag buñ ko muqadamal te pareegut ma ne du doon muqadam muqajamal lay doon wala mëq doom wala muqatal yàq rek crise des valeurs dafay feeñ ci boobu parti wa ilaa nga nekk koo xam ne taalaboon nga taalaboon ci kër sëriñ bi lay de lekk-lekk sëriñ bi boom jeex tàkk sol ci daray sëriñ bi nop sax ci soxnay sëriñ bi li yëpp am na am na de am na de waaw nopp soxna yi sëriñ bi lekk yàpp sëriñ bi sol ci daraay sëriñ bi waaye fu mu méttee nag nga arrière mooy ñooñu nga xam ne au lieu que ñu fexee doon cër ci jëmm ji dañuy nekk duufaay ci jëmm ji duufaay moom waa weli ngara bu neexee rek ñëw nañ yaa ngay lekk yaram bay fees fu vent kilim yi ëppee foofa ngay toog yu baax yi daal waaye bu tàngee bu mettee rek nga daw gis nga duufaay ci jëmm neex neex rek ko fay indi mais bu naqat naqat ñëwee rek moom daw na feebar bu ñëwee liggéey yi ñëw du fay daw na taalibe dëgg mooy koo xam ne dafa góor góor lu ba nekk cër ci jëmm ji baaramu sànqaleñ bi nu jëmm ji mun a mel rek mu ngi ànd ak moom baaramu sànqaleñ bii bu nit ki dee bañ koy sang sax ma nga ca bu jëmm ji ay nëpp sax mu nga ca taalibe da nga war a góorgóorlu bu egg foofu sa diggante ak sëriñ bi nekk cër ci jëmmam baay Modou Gueye dafa nekk cër ci bàyyi Ousmane Dieng moo sax quelque soit alfa mu ngi ànd ak moom rek bu naajee bu tàngee bu seddee bu ñu feebaree bu ñàkk amee mu ngi ànd ak moom rek effectivement Dieng Saala noonu la àndeewoon dara Baye Dramé dara Dramé man Dieng Saala ba muy tarbiya fa la fekk melokaan wam amoon engagement ba mu jëloon ba léegi dara soppeeku wut ci every time maa ngi koy gis mu ngi feeñal kóllëre ak mbëggeel dégg nga ko noonu la Baye Ousmane Dieng mel ci bàyyi dara Daraame waaye bàyyi dara it noonu la meloon ci Cerno Alsaan dem dem yóbbu tukulóoru Baye borom Sinthiou Dangde dafa jox léppam Cerno 89 Cerno dem na ñu bëri dem nañ mais moom dafa lab sax fa te daayiman fu mu nekk luy feeñal taaru Cerno moom ci loolu lay dox luy yëkkati Cerno luy màggal Cerno dara Daraame ngay toog ci jataay kaddu gu mu wax rek su waxee fukki kàddu juróom yëpp cerno nee na ngay dégg te uniquement li tax muy def loolu mooy pour jëmmal cerno ak feeñal ko ak feeñal ne moom am na ngërmaandeel cerno mu ngi continuer moom di gërëm cerno loolu mooy maqaama bi foofu la ñu war a dox fekkee nekk taalibe taalaboon baaxut teel a ba baaxut nañ nekk taalibe taalibe mooy ki àndoog sëriñ topp ndigal ya bàyyi tere ya sa bugu-bugu mooy bugu-bugu sëriñ bi fi sëriñ bi xool ngay xool li sëriñ bi gërëm ci loolu ngay dox waaye suñ mbokki murit yi sax nee nañ murit ndigal mooy ku àndoog nit ci yàlla danga nga war a omatu topp ndigal bàyyi tere bugu-bugu sëriñ bi rek moo war a doon sa bugu-bugu kàngam yi daroon bàyyi mam man la ci am koor jànke borom bët yu xonq ya ah mbëggeelam ci Cheikh Ibrahim dem na ba nga xam ne moom mam màlle faaleetu doon lu dul Cheikh Ibrahim bàyyi rek la doon gis feeg bàyyi am na soxla ci lim yore moom pare na ci bés sax maa ngi koy faral di nettali Mawlana Cheikh Ibrahima yónnee na ca Maam Malle xaalis somo xaalis bu mu soxla te wax naa gaa yi ne leen bàyyi mbir mu ci nekk fa koy jëlee xam na ko mu ngay yónnee ca Malle te xam na ne Malle yoru dërëm ndax bàyyi moom bëtam bu rëy boobu mu ngi jàkkaarloog jop dem leen ca Malle ne ko nangam ci xaalis laa soxla ñëw fekk Maam Malle yoru dërëm dërëm mu ne ah sëriñ bee yónnee ah lim bugg de fañ koy def xar mu nekkoon buntu këram moom lañ jël jaay ko jël xaalis ba bogo bogo ko ca saasa munoon na wax ne demal nii nangam mais dafa teg ndaw li mu toog ndaw li delluwut ci bàyyi lu dul yóbbu na kaalis ba mu ñëw jox Cheikh Ibrahim xaalis bi bàyyi téye xaalis bi di ko bàcc nii ci loxo bi naan xay lii doyu di ne nañ dolli dem demal ne leen nañ dolli li del siyaat ci maam Malle bi mu egsee fekk am na benn terrain bu maam Malle amoon foofu Fass Cheikh Tidiane ci boori armeel yi mu wax maam Yaasin bi tey ne ko nañ ko jaay sëriñ bee soxla aali Naar mooy paawu Naar boobu doon jàng xasida ci jumaa ji ndeysaan dégg naa fi soirée doomu soirée mu nekkoon ci jumaa ji la am déet oh yow foog ñu fasante xarit sa baay suma xarit la woon damay doon toog di xalaat soirée soirée di ko xalaat mu man fu may gisee lu bokk ci soirée moo tax jataay bi baatin la bi waa ji waxee ne am na néeg ca jumaa ja laa ah, kon so suma soirée ma la ah. borom affaire yooyu waa ju jeex takk ci Cheikh ibrahim non yow ay xarit lañ Ali Naar moom mu doon jàng xasida yi ci jumaa yi Baay Ñas yi moom la mammalle jaay teerem ba paquete kaalis ba yónnee ko bàyyi lan la ko jural ñu ngi toog fi tey di ko tudd te dañ koy tudd ba ilal abat te yàlla defal na ko teraanga taalibe sa sëriñ lii la bëgg doxal ci loolu te fekk yaa ngi góor góorgóorlu teraanganteeg sa sëriñ pays yàlla bi du deñ di lay lonkal ay garaat di lay yéegal di la yëkkati beneen mag ci magi bàyyi dafa nawet nawetam bu nawet ba wàcc mu jël toolam def ko ñaari naaf naaf bu mag ak naaf bu ndaw oo bàyyi ne ko kañ dem nga seeti liggéey ba ñii ne Cheikh Omar la sax nañ dem nga seeti tool ba dañ jub tool bi fekk moom bi muy ñëw dafa programme ci xolam ne naaf bu mag bii moom laa jox bàyyi naaf bu ndaw bi man ma jël ko dañ jub tool bi rek xam nga suma ma waaji moom ay mbiram dafa yéeme mu ne jàkki-jàkkaarloog naaf yi xam na sax li xew Cheikh Ibrahim dara umput ko mu wax góor gi ne ko naaf bu ndaw bi de man neex na ma Cheikh Ibrahim wax ko loolu ne ko naaf bu ndaw bi de neex na ma mu ne ko gannaaw noonu la man de naaf bu mag bi laa la na loon waaye gannaaw naaf bu ndaw bee la neex jox naa la naaf bu ndaw bi ak naaf bu mag bi mu bogo bogo nawetam yëpp jébbal ko Mawlana Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall nawet na ba nawet wàcc mu bogo bogo nawet ba jébbal sax moom it Cheikh Ibrahima peeru dàll diwan jëndalut ko ca soxnaam lan la leen jural am nañ ekkiteku koo xam ne dootuñu wàcc ko ilal abat nañ leen nekk taalibe yu demee nii ñu di ko waxtaanee nga jàpp ko pare pour roy leen bu ëllëgee mu am lum la may duut mokkal ko mun koo nettali nekkoo ci ëpp gi yëpp ay doole gi ay islamologue lañ log xasida yeeg bayti ci sa gémmiñ gi mbar te boo tourné fale yaa ngi leneen yaa ngay def leneen yaa nga mel neneen li ngay wax dara nga ci gëmut nañ fexe ñu gëm Cheikh Ibrahim jël suñu lépp jëbal ko Mawlaana Cheikh Ibrahim bu am soxla ci suñ bopp niw googu bàyyi wax ca ruul adab na nañ ko nekk nay dëggu ñu bëri danañ soññ ni ñi nekk leen niw niw niw niw te ñoom ñay soññe sax duñ niw seen bakkan yi rek ca lañ nekk la leen arrangé rek ca la ñuy dox waaye biddaahi suñ jëloon suñ dund yi jébbal ko bàyyi seey yeex tak am teraanga àddina ak alaaxira xanaa xamu leen ne Cheikh Ibrahim c'est le représentant de Dieu sur terre kanaa xamoo ne bàyyi jëmm la joo xam ne ma koy arrière ca lépp lu gongee ko ca pay bi ba xaqiqatu muhammadiya moo ko dékku yàlla desewut dara lu dul yàllaam nga man yàlla lim baax la yëpp jox na ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam lim baax la yëpp jox na ko cheikh ahmad tidiane waaye cheikh ahmad tidiane lim baax la yëpp jébbal na ko cheikh ibrahim kon nañ leen ñëw ñu sukk ci bàyyi ñu yeesal suñ gëlëm la bàyyi ma abdou ñang waxoon anaxtu raxli janaaba cheikh yi rajawtu minhu dural maani ñu jël suñ waxtu ñu jox ko bàyyi danañ am teraanga àddina danañ am teraanga àllaaxira lii bu ko moon a egsi fii ci ay wax sax mais dañ bëgg mbégte mi dal Baye moo duggee moo ñu dal te jataay bi am na barke maa ngi sant yàlla nag Baye Cheikh Tidiane Dramé mi tax dégg nga ko ma egsi ci jataay bi bi ma ñëwee dégg naa ñu tudd fi Baye Doudou Biteye Baye Doudou Biteye suma mag Baye Doudou Biteye suma xarit Baye Doudou Biteye suma sëriñ Eh, ndax jëmm la joo xam ne maam Malla Thiam a def lam def ci moom moo doon suñ mag wallahi dañ daan toog bëccëg ji wax ci yàlla bu guddi añ suñ mbaxal mu des ñu dëpp ko bu guddee ñu reer ci continuer di wax bu ay une muy góor gu baax yal na yàlla yokk leeram ñu ngi ndokkel Seyda Fat Dramé gis naa ko muy dem waaye ñu ngi koy ndokkel ci lii ñu ko defal Seyda Fat amee ñu ñoo ko doon boot ñoo ko doon gàddu fii suñuy mbagg muy xale boo xam ne am nañ yaakaar ci moom lool ndax bàyyi daraame kum jur fokk nga nekk mbir lu juddoo ci tàgg su mënula naaw dafay jommali bokkam yaayam seydaa Kiné Ngom ku baax di soxna su baax di soxna su muñal bàyyi daraame di soxna su jàppale bàyyi daraame toll nay jamono ñun ñaar ñooñu ñun ñett ñooñu ak ñoom Omar Diop ñeenti nit ak Cheikh ñoo nekk biir kër Baye Dramé te lii ay at ñu nekk fa di dund ñu ñuñ xam lañ kon ku leen teraangal rek man Baye Diouf man nga teraangal kon dëgg-dëgg kontaan nañ ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla def mag yàlla na yàlla may ko borom kër bu baax may ko ay doom yu bëri te barke di ñaanal Baye Ousmane Dieng lii lépp liggéeyam la damay wax ne Baye Ousmane Dieng résultat wu Baye Daraame la pour ñu xam ndax Baye Daraame dara la am déet nañ xool kenn ku ci nekk nañ xool résultat bi nga feeñal pour ñu xam ne dem njoba tukulóoru Baye dara la nañ xool ni mu def Baye Dramé ba Baye Dramé defe bo Dieng Saalay defee te def googu Baye Modou Gueye def na ko fii te kim ko def def koy defee loolu bu ilaa yow mi diin kon loolu mooy wone ne barke wàcc na fi ñu ngi leen di ndokkel di jégalu bu baax ci kàddu yi xam nga mbiri géwél da du yem rek ñooy géwél Baye da du yem te mbégte def ñoo dal ñu ngi leen di ñaanal yal na ngeen mucc Cheikh Ibrahima Diouf mu ne mbaal gi fees na waaye yëpp jën duñu egg ndangaan ñu ne ko lu tax mu ne borom bu rooyee tax transhumance bi ngay gis yëpp dara indiwu ko loolu pay bi mooy yëlëbu dafay mel ni xar mooy sang rek ni karaw yuy ruusee noonu la nit ñi génnee ci pay bi tey yi ruus ak yi ruus suba booy sang du doon benn misaal naa ko sax oto bu déparé fii jëm Medina bàyyi ñi client yëpp egguñ Medina bàyyi ñii jam ñaajo croisement jam ñaajo la ñu yem wàcc ñii bu ñu eggee ba mbuur nag comme ak nguur lañ bëgg dox ci seen bakkan ñu bëgg a nekk buur wàcc fa teraangay àddina leen intéressé mbuur la ñuy wàcc dootuñ dem dootuñ màgg ci yàlla am na ñoo xam ne Fatick suñ fa eggee fatigué parce que nañ téye baaxut dañuy toqi becceeku loolu lépp nag buggu cër ak ñoddi maxaama moo leen di wàccee mais am na ñoo xam ne ñoo oto bi ci bayaalu Baye Niass ba yal nañ fa egg ñun ñëpp yal nañ egg ci bayaalu Mawlana Cheikh Ibrahima Ba ngeen jàpp-jàpp leen ba mu dëgër ki nga ñëw mu tarbiyal la ne la cas yóbbu la xadaratul quds rey la ci kenn ak yàlla ki dekkale te dootoo dee sëriña du fëriñ te du këriñ ti mu dëgër sax fa dakk nang fa jeex takk mag ñi li leen may liñ am ci bàyyi mooy sax benn palaas waaye mañax mañax mañax ku nekk nga ne danga ko jox nopp si rek ti daa am nga loolu la topp góor ñi góor gu ne nga moom si rek feebar boo xam ne kenn du ko faj <laughs> si ci yàlla am na de billaahi parce que da ngay ñëw ci Baye Diouf mu réglé lee la maqaama bi nii nga dem ca Baye Modou Gueye mu réglé ko neneen ab alpha ngóor ak jegaan ku nekk nam ko réglé ak na ko moromam réglé du benn léegi da ngay taxaw ne fan la dëgg ga ne la ngay mujjee mooy yëpp ay caaxaan la wallaay du caaxaan kon nag doy lool sa bunt ñëw nga may na la ci rek mbuum tonni nga mbuum ma soo aajoo ndollal dellul ci moom rek am na ñu bëri dañoo bew gaaw a gis seen bopp tuuti ngay am rek ñu naan la bàyyi diw nga gungeet gungeetu xulli bët ett say faas ba mu baax uf sa kollu foog ne dara nga doo dara ñooñu bu leen faale saxal ci sa sëriñ rek réeral ci biir sëriñ bi bu jéem a feeñal sa bopp bàyyi wilaan mu ne kuy feeñal sa sëriñ da ngay feeñ rek waaye kuy suul sa sëriñ mu ne mën lañu rek kon buntu leen bàyyi dikkee téye leen ba mu dëgër bàyyi moo duggee seen groupe boobu dugal leen ma ci gëm sa sëriñ waaw bokk na man màll rek laa gëm waaw gëm sa sëriñ looloo war a am soo gëmee sa sëriñ rek daa iman da ngay yéeg nit da ngay màgg doo deltu ginnaaw fekk yaa ngi am branchement ci sa pays sëriñ billahi waxoon naa ko ca sa gàmmu ko fële ca amoo bàyyi nee na buntu bi ngay tëbboo soo ko ubbee mboolem buntu tëbbuwaay yi dañuy ubbeeku ñeel la buntu bi ngay tëbboo yow Baye Diouf nga gëm jeex ci moom sey ci moom joxe fa sa lëpp sooy dem kër Cerno jëriñu kër Maam Ibra Faal foo dem jëriñu bunt yi ñuy tëbboo dañuy ubbeeku ñeel la mais sa buntab sëriñ boo ne ko ràpp tëj bunt boo jublu rek tëju na kon nag ndem fii ngay sukk ñu ubbil la bunt yëpp sukk fa rek sëñ bi amut benn sëriñ bu fi yor lu muy séddale fii kenn yoru fi dara bagage yëpp bàyyi ko téye mammale dara la téyewut Maam Ibra Faal Cerno Alsaan sëriñ Alin ñoom ñëpp téyewuñ dara joxewuñ dara aji sedd léegi kooku mooy jabrul kasri yërmande ak yàlla gi mais ku ne nag am na fu mu lay joxe sukkal ci màlle rek waaw bàyyi déverser ko foofu nga jot ko sukkal ci maa rek demal ca jëng saala demal ca moor kenn ku ci nekk sukkal bunt yu ubbeeku nga jot sa càkkutéef yal na leen yàlla saxal ci seeni bunt maa ngi jégalu wax ji bari na te bariwul njëriñ kontaan nañ trop ñu ngi lay ñaanal yal na boo damm yal na nga gudd fan yal na nga dund téeméeri at yal na nga bëgg bàyyi bëgg bàyyi goo xam ne day yokk par tiers kontaan nañ trop su la neexoon ma ñëw ba fii nga dammu say xef nuyoo ma cati baaram am na ñuy def noonu gaayan ngay doon ak ñoom ngeen daje ñu di la jaay ay daraja ak martaba su boobaa man sàmm ne me parce que li ma wax gaa ñi ma ne leen yàlla def ma dimbalee benn mbir su ma yelwaan kenn du ko këpp kenn mënu maa jaay affaire ndax lu tax xalifa Baye alhaaji Abdoulaye Ibrahima Niass Cheikh Ahmedou Mouhamad Nazir Mouhamadul Haadi Cheikh Ahmada Tidiane demet ñoom ñëpp gërëm nañ ma te màlle su ma sëriñ ñoo ñëpp buñ ma gërëmutoon màlle gërëm ma am naa dara te mboolem kàngam yi fi nekkaloon Baye seen xulafaaw ñoom ñëpp gërëm nañ ma dawal nga wàcc tay ba ña ngeen ca Baye Haji Roqi waa alfu salaati su la neexee nga jàll ci alaaji baraam kër ma jabel damal ca Tidiane Touré ca London Cheikh Omar Touré wër leen ñoom ñëpp kàngam yi ma jamono anteeti nag ñoom ñëpp am naa seen ngërmaande Cheikh Abdou Barham Baye Makhtar Ka Thierno Abdoulaye Dia wëral wëral dégg nga ko ba ci Cheikh Mouhamad daraame demal nga laaj ko man may kan ci moom Baye Darame mu Thierno demal ca Cheikh Mouhamadul Kabir wëral pay bi ba mu naar bi njëkk ñëw ci Baye Cheikh Uldu Ndaxwi teg na loxoom bi fii su digg bopp moo tax nag am na ci genre doxalin bu ma ko gisee ma naan patt rek noppi bu ma paree rek doom suma yoon man bàyyi lay xeeñtu fu ma gis bàyyi toog fu ma yëgut bàyyi dem suma yoon kenn moomut ma waaw ni ko waa ji waxee <laughs> garaaru kenn denu ma man jaami bàyyi ñas laa fu ma gis bàyyi man bu ma ne nena ngi rek nena ngi te jataay bi am na barke te jataay bi neex na te lépp yow la yal na la yàlla kattanal yàlla sutural la maa ngi ñaanal ñu fi toog ñëpp yal na yàlla faj aajo xaalis waaye yal na bëri loxo yi yal na fees dell alal xol yi yàlla feesee ko tant bi waa ji wax na loolu te loolu day am masalan pour muy tawee ko rek di dem bi mu waxee loolu rek dama sigiteen di xool tant bi ni muy yaatoo dégg nga ko la ma màlle daan waxal bàyyi bu bàyyi daan tukki da koy oo ne ko màlle ñaanal ma ñaanal ma male ñaanal ma bàyyi mooy ñaan loo màlle xam nga loolu yow boo amut réseau da ngay foog ne màlle daa garaaw déedéet bàyyi am lu muy wane rek bàyyi muy ñaan loo màlle te màlle bàyyi ko ñaagal mu koy ñaan loo ki nga ñaagal nga koy ñaan loo am na lu muy wane su ko defee male feeñal li bàyyi bëgg mu feeñal mu ne ko sëñ bi yóbbu naa la indi naa la te neexal naa yoon wi bàyyi ngay tukki mu ne ko ñaanal ma ma màlle nekkut fa naan yaa rabbi hee yow yàlla def de def na ko yóbbu naa la indi naa la te neexal naa yoon wi moo tax bi waa ji waxee lool ci tant bi ma ni tamit ci suma xol bu yaatu ak bëgg njobootu baay Modou Guèye di am lu baax yëkkateku ma taxaw rek ne réyal naa tant ba ci suma xol bi xam nga mënoon naa koo noppee sax waaye wax ko pour ngeen xam ne fii ma toog dañ ma souhaité la bienvenue te lépp lu ma am ci lu baax yéene naa leen ko moo tax ma ne tant bi nay gudd di tawee ko da nga ko nay màgg bu fi dara deltu ginnaaw te ku fi ñëw yal na boo deltu ginnaaw waa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin allah sëriñ bi jërëjëf Ba Diouf kontaan nañ bu baax abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne daayiratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun la jigil kese la doom si di baram